diggante feu rouge ak bulldozer arbitre bi sifflé na diggante feu rouge ak bulldozer bulldozer à gauche feu rouge à droite ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndeysaan diggante bulldozer ak feu rouge ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante bulldozer ak feu rouge ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndeysaan ñoom ñaar ah ñii de xam ne jàppante nañ ñoom ñaar Buldozer mu ngi koy dóor ndeysaan Buldozer mi ngi dóor feu rouge Buldozer mi ngi dóor feu rouge ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan feu rouge jàpp na feu rouge jàpp na ndeysaan tey bii combat ndeysaan képp kiy bëggee Sénégal rek Diba mu ngi lay bëggee maa ngi egg nii ñëpp ndeysaan tey famille Diba bëggee naa leen di leen ziar ndeysaan diggante feu rouge ak Buldozer ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer mi ngi dóor pour mu siggi ndeysaan Bulldozer feu rouge ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer fo rouge ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer feu rouge ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan bësukan la Fallou Ndiaye taxawal ñaari espoir yu mag diggante feu rouge ndax Bulldozer ah ndax kan pays de la grand monteur ndeysaan maa ngi nuyu équipe bi yëpp comme d'habitude ñoom ñaar jàppante nañ tey jaan Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér maa ngi nuyu équipe bi yëpp day sàmm xam di leen xamal nag ñu ngi jëble si weeru koor gi ñu dugg si bisimilahi rahmaan rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin génn fi teew lan na moom mooy Diba day sànn Diba grand rapporteur Sénégal diggante Feu Rouge ak Bulldozer ñoom ñaar jàppante nañ désert jàpp na mu ngi koy nengeñ bi nag moo baax ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ Feu Rouge ak Buldozer ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ dafa dara Buldozer moom jege na saako yi te saako yi fekk siwul kenn ñoom ñaar jàppante nañ jom ak condition physique moo koy gagné ndeysaan lii moo tax entraînement baax ñu doon ñaan ñi ngi doon ñaan ñu doon génnee sarax ñu ngi doon génnee sarax ñoom ñaar jàppante nañ diggante feu rouge ak bulldozer ñoom ñaar jàppante nañ feu am na ngemb bulldozer am na ngemb ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan Doudou Sané lii la ko waxoon teel sa bopp jarul ngay yàkkamti parce que bulldozer mooy wut ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ diggante Bulldozer feu rouge Bulldozer mu ngi koy xëccaat ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ diggante feu rouge ak Bulldozer diggante feu rouge ak Bulldozer diggante Bulldozer ak feu rouge diggante Bulldozer ak ñaar jàppante nañ Bulldozer am na ngemb ba pare def ka nengeñ tey bii combat ndeysaan ku daan xam nga fu mu lay yóbbu ku si daanu tamit ndeysaan feu rouge jëm na ko cabaxal mu bañ ñoom ñaar jàppante nañ bulldozer bu ngi koy dóor pour mu siggi ñoom ñaar ñoom ñaar jàppante nañ diggante bulldozer feu rouge ndeysaan feu rouge ma ngay dóor bulldozer pour mu siggi feu rouge ma ngay dóor bulldozer pour mu siggi feu rouge ma dóor bulldozer pour mu siggi ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan Bulldozer feu rouge Bulldozer feu rouge ñoom ñaar jàppante nañ Bulldozer moom moo dóor song moo dóor song ñoom ñaar jàppante nañ xam naa dafa bëgg a jeexal combat bi si une minute wala deux minutes est-ce que feu rouge dina ko maye loolu ñoom ñaar jàppante nañ dafa ndox feu rouge yéexee eh, tey bii combat diggante Feu day Buldozer ndeysaan Buldozer mu ngi ko doon imposer Feu Rouge bañ tey bii combat Buldozer Feu Rouge lu ma doon wax rek jom ak condition physique moo koy gañe day parce que ñoom ñaar ñëpp entraîné nañu ñoom ñaar jàpp nañ ci ñoom ñaar jàppante nañ diggante feu rouge ak bulldozer ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ku si nekk jàpp na ngem ndeysaan bulldozer jëm na ko fàqat bu bañ jëm na ko fàqat mu bañ feu rouge bulldozer jëm na ko fàqat bu bañ feu rouge bulldozer ñoom ñaar jàppante nañ cey buur maa ngi lay bëggee di la ziar li ñu la def keroog waa Sénégal naqarul nañ ko yow da nga bokk si làmb kenn warul a génnee loolu moom dafa ñaaw day sànn sa conférence de presse ñun yëguñu ko ay buñ koy yëgoon nañ fa teew man da yëguma ko man da dibaada yëguma ko buñ koy yëgoon dinaa ko woo dinaa ko wax mëngoon ne ñun ñëpp dem ay buur champion la ndeysaan kooku kenn waru ko génnee si làmb maa ngi dégg père max naan weer bu feeñ na moo toog nii sama gannaaw diggante feu rouge jàppante nañ feu rouge bulldozer jàppante nañ feu rouge nañ bulldozer mi ngi dóor pour feu rouge siggi feu am na benn avertissement feu rouge bulldozer ah arbitre bi at na combat bi xam naa dañuy noppali. Bulldozer feu rouge ah Bulldozer jël na ko mais song bi dafa sori nag song bi dafa sori day sànn feu rouge jàpp na Bulldozer jàpp na day sànn feu rouge Bulldozer feu rouge Bulldozer ñoom ñaar jàppante nañ diggante feu rouge Bulldozer laa ilaaha illallaah Fooruj jël na ko bu bañ Fooruj jël na ko mu bañ Fooruj jël na bu bañ ndeysaan laa ilaaha illallaah Fooruj jël na ko mu bañ Fooruj jël na ko ah Fooruj daan na ko Fooruj daan na ah jël la de jël la amagul Fooruj ma ngay dóor bulldozer ndeysaan benn ku ñaar ñett Fooruj ma ngay dóor Fooruj ma ngay dóor Fooruj ma ngay dóor Fawruz ma ngay dóor Fawruz ma ngay dóor Fawruz ma ngay dóor ay waay waay waay waay wër ndomba taxul nga daan ko de ndeysaan Fawruz ma ngay dóor benn ñaar ndeysaan Fawruz ma ngay dóor Fawruz wër na ko ndomba Fawruz wër na ko ndomba Fawruz wër na ko ndomba laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Bulldozer génnaat na si wër ndomba taxul nga daan ko boy bi mbapat rek lay def boy bi mbapat rek lay def day san ku daan général Malick day san daan Serigne Ndiaye numéro 2 daan ordinateur day san daan Doudou Sane kooku moom may kat moom may blazer day san wër ndoom taxul nga daan ko génnaat na si génnaat na fi cey bulldozer génnaat na fi diggante bulldozer ak feu rouge bulldozer feu rouge moo tax Fallou Ndiaye lu mu taxawal xamu ko sax taxawal ñaari combat espoir yu mag diggante Fawrous ak Bulldozer Fawrous ak Bulldozer Fawrous ak Bulldozer ñoom ñaar jàppante nañ waa kees maa ngi leen bëggee di la ziar ñoom Maadou ñoom ñee balo ndeysaan ñoom ajuma Bulldozer Fawrous ñoom ñaar jàppante nañ tey Cheikh Sidou Matar yàlla na fi yàgg te wér Boule Désert Feu Rouge ñoom ñaar jàppante nañu. Boule Désert Feu Rouge ñoom ñaar ndam li Malika la jëm wala Pikine la jëm ci kanam dina leer ñoom ñaar jàppante nañ diggante Boule Désert Feu Rouge diggante Boule Désert Feu Rouge diggante ah, Boule Désert bi àtt na leen. arbitre bi àtt leen diggante feu rouge ak Bulldozer ah arbitre bi jox na avertissement Bulldozer ah tax mu jox ko avertissement man daal jaaxal na ndeysaan Bulldozer feu rouge ah Bulldozer jël na ko Bulldozer jël na ko feu rouge bañ na Bulldozer jël na ko feu rouge bañ na jege nañ saako yi te saako ñu fekkuwul kenn Bulldozer feu rouge Bulldozer jël na ko Feu bañ na ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar ku nekk am na ngemb ñoom ñaar ku nekk am na ngemb diggante Bulldozer Feu Rouge diggante Bulldozer Feu Rouge diggante Bulldozer Feu Rouge ñoom ñaar jàppante nañu xam naa Bulldozer moom dafa bëgg a jeexal combat bi ci une minute wala deux minutes mais booy bi may ko loolu Feu-Rouge mayu ko loolu diggante Bulldozer Feu-Rouge diggante Bulldozer Feu-Rouge diggante Bulldozer feu ñoom ñaar jàppante nañu Bull Désert feu rouge combat bi metti na te yàgg ñoo bëre tolloo doole Bull Désert bu ngi koy jéem a génnee feu bañ ñoom ñaar jàppante nañ diggante Bull Désert feu rouge ndeysaan maa ngi gërëm Pa Maguette sama doomu ndey la xamal ne Diba mu lay nuyu ndeysaan pour saa ira baax lu la dal nii dootu la dalaat diggante Bulldozer feu rouge diggante Bulldozer feu rouge feu ngay dóor Bulldozer jàpp na Lune de Geer feu rouge feu rouge da nga doon dóor Lune de Geer jàpp na feu rouge mu doon dóor pour mu siggi pour mu mën a am poñ mais Lune de mayu ko dara ah arbitre na combat bi parce que ku nekk Lune de Geer feu rouge Lune de Geer ah arbitre bi àtt na combat bi jox na Bulldozer avertissement jox feu rouge avertissement ku nekk am na ñaari avertissement arbitre bi sifflé waat na combat bi diggante feu rouge ak Bulldozer waa soxna si combat bu yàgg day naqaree reporté. day naqaree reporté da wax ba doo xamante looy wax papa te fi mu ne ñoom ñaar ñëpp Fatick daa feeñ condition physique rek moo fi des ku gëpp condition physique rek mën ngaa am dam ci làmb ji ay ca papa. comme bulldozer ci defet la jógee. bëggu la ñàkk waaw. bulldozer bëggu la ñàkkaat ba làmb ji ba kanam la ci teg ndax dafa am fu ko mën a yóbbu. Mhm. waaw waaw loolu lañ ko digal. ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ. Bulldozer jël na ko mu ngi koy jéem a génne saako yi mu bañ koy jéem a génne saako yi mu bañ parce que ku nekk am na ñaari avertissement Feu am na ñaar Bulldozer am na ñaari avertissement Feu am ñaari avertissement li nga wax dëgg la jom ak condition physique rek. waaw fi mu ne physique rek moo fi des. képp condition physique mën nga am dara ci làmb ji papa ndax fi mu ne nii ku ci nekk sa doole jeex na physique ak expérience kese nga mën a utiliser pour daan. Mhm. dégg ngeen soxna si lu wax arbitre bi artewaat na combat bi jox na feu rouge avertissement. ay gars yi d'accord ñu ne arbitre feu am na trois avertissement bulldozer am ñaar gars yi ñu de. d'accord ñu de. mu mel ne nag papa arbitre li mu def loolu la ndax fi mu ne euh, mu mel ne euh, Bulldozer mooy diriger combat bi euh, Farouz fi ne nii bëreetul woon. dëgg la xoolal waa dëgg la rek lu ma rey diggante Farouz ak Bulldozer Bulldozer dafa bëgg a jeexal combat bi ci une minute wala deux minutes ah ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ. ñoom ñaar jàppante nañ mais Feu mu ngi koy jéem a pousse pour mu génn moom tamit am trois avertissement waaw waaw mu ko dañ jéem a pousse pour mu génn pour moom tam ñu jox ko avertissement Feu am na trois avertissement Bulldozer am deux avertissement bu jeexee nii na ñuy jox victoire bi ñoom ñaar jàppante nañ Feu mu ngay dóor Feu Rouge mu ngi Feu Rouge ngi dóor Feu mu ngi dóor pour mu siggi ah arbitre bi àtt na combat bi ndeysaan Père Max nee na arbitre bi moo yàq làmb ji. arbitre bi <laughs> ah, am na victoire ndeysaan Feu Rouge arbitre bi Père Max nee na arbitre bi moo yàq làmb ji nee na loolu du yoon kon Feu am na trois avertissement Bulldozer am deux avertissement kon ndam li Bulldozer moo ko mujjee jël écurie Malika moom moo mujjee daan ta lii du jël xam nga arbitre ñoo yàq làmb ji ko xam nga defee booy di def ay violence lii du yoon arbitre dañoo war a teg si li ñu def ci yoon gis nga ay met ay ponkal suñu entraîné ba am doole xam nga luñ du def la war a teg ci yoon xam nga lu ma la mais taxaw di seetaan booy bi mu yàq lambam nii kii dafa gëj a bëre xam nga ñëwaat ñu war ko seetaan nii léegi su ko defee booy suñu defee violence gars yi. dara ngeen avertissement du avertissement. loolu mais dafa am loo xam ne dafa ah après suñu waxee ñu ne boy ñoo xamul dafa li dara ah. parce que affaire bi affaire bi la la njëkk ñu ragalu ñun dara ñun jaamu ko leen dëkk. jaamu ko leen alxuraanul karim dafa ni ay dëbb lañu ñu ragalu nday fu ñu jëm ay wallahi wallahi jaamu ko ci gam baw lañ bañ barki yàlla